bedd ndakaaru yi foo sàndi mbàtt mu daal takk ngir nit ñu bari yu génnoon jëfe ndigalu Ousmane Sonko waa Grand Yoff tamit kenn demul ñu des waa ji di ab ndaw ay moroomam daal koy wër muy wone nakaram concert de casserole wax Macky Sall bas na dictature bu muy def ci dëkk bi doy na muy jàpp di tëj doy na sëkk voilà la Khady Diémé moom li ko yëkkati mooy dundu cher gi ceeb bi seer na diwlin bi seer na ñun dañoo sonn suñu doom yi jàngatuñu Macky daal nañu abal na dem rek na dem ñun dañoo sonn. sëñ bi gay ci wàllam di fësal li sabab askan wi génn ñoom ñëpp. ak di waar ñi jiite réew mi. population yi suñu demee ba sonn rek am na lu ko waral. instant yii ñu ngi déglu milliards millions yi dul jeex. ci ministre yi ak yi demee noonu. xam nga yéen situation yi nii boo xoolee sa doomu réew mi ñu sonn bay bëgg a dee da nga leen yërëm njiit boo yëree mbir yàlla wax la may doole. pour nga ko xeexee déedéet pour nga yërëmaatee la pour yërëmaatee mooy lépp. dundu gu ak réew mi nu muy doxee ci wàllu institution moo waral mu nekk ay yoo xamante ne lu mat a jàng la